auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu yéen waa Daaru Salaam si baaw ñoo leen siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yaa defar àdduna ak alaaxira bi ñu sant yàlla nag julli ci yonent bi salallaahu alayhi man nekk rek ñoo la koy ñaanal defar àdduna ak alaaxira ci wax nag ngeen abonné suñu seen YouTube Daaru Salaam si baaw boo abonné pare nga tous bés tous cloche bi mooy waral vidéo bu ñu mu ñëw coow di wax tamit Daaru Salaam si waaw dana leerlu dana seet bokkuñu seetal boo woote ci numéro yooyu dañ la seetal wax la sa sarax wala wax la sa càngaay foo mën a dem def yi nga dem defe ji ko di wax daal ne Daaru Salaam si waaw njëriñ rek moo fi jaar fas yéene jëriñ doomu aadama yëpp ñoo ngi leen di seet yéen ñi yëpp message yeeg yëpp jot nañ ci daal ñoo ngi leen di seet baax leen ñaanal def rood nag dama ñëw ci astaghfirullah ci lim bu yéeme boo xam boo jaaree ci yoon wi ñaan ci suñu borom ndax suñu borom nag yoon yëpp ay code la waaye code bi daal ku ci jaar ci astaghfirullah ñaan ci suñ borom tabaaraka wa taala suñ borom loo ci bëgg suñ biir mën na la koo yemal ndax yàlla moo ne faqultu astaghfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursil sama aleykum bi dara wudikum baalaw bënn maanaam yéen dee leen wax astaghfirullah ndax yàlla jéggal leen te yàlla ku mu jéggal rek yërmande jaw lii nag di bisu dimanche nga koy commencé boo defee astaghfirullah dimanche 489 bu altine ja nga def 489 ñaari yoon déglu leen bu baax bu dimanche da ngay def astaghfirullah 489 boo paree nag da ngay jàng sootul wàqee boo paree da nga jàng sootul wàqee moom boo paree da nga jàng sootul wàqee boo defee 489 pare da nga jàng sootul wàqee ba mu jeex bu dimas bu altine jaa ndax dimanche nga koy commencé nga def 489 ñaari yoon jàng suuratul Waaqia ñaari yoon bu altine bu bu talaata jaa nga def 489 ñetti yoon jàng suuratul Waaqia ñetti yoon ba fukki fan ak ñeent ya mat bu fukki fan ak ñeent ya matee nag nga continuer ak yor sa kurus nag di def astaghfirullah téeméer wala juróom-ñaar fukk loo ci man ba da neex nga def 70 ndax 70 bi. mooy limu kun moom it dara gënu ko ci astaxfirullah fukk soixante-dix yooyu gàtt na lool nag waaye mooy limu kun ndax keef ñaar fukk la nun vingt mooy soixante-dix nun cinquante mooy soixante-douze cinquante ak vingt mooy soixante-dix nun cinquante la keef ñaar fukk kon moo loolu mooy limu kun astaxfirullah lim bi ñu leen jox nag ku ci jaar ji ko ñaan suñ borom loo bëgg ci lu mu mën a doon suñ boroom dana la ko yombal te dana la ko may waaye nag da ngay def astaghfirullah bisu dimanche 489 nga koy commencé boo altine jaa nga def 489 ñaari yoon bu talaata jaa nga def 489 ñetti yoon ba muy mat fukk fan ak ñeneen bis bu ñëw doo ngay dolliwaat 489 doo ngay dolliwaat boole ko da ngay dollal wàqam bi tamit bu dimanche boo defee 489 jàng wàqee benn yoon altine ja boo defee 489 ñaari yoon da ngay jàng waqee ñaar yoon bu ko defee ba fukki fan ak ñeent yi mat loo ñaan ci suñu borom ci xeetu yërmande ci xeetu wërsëg ci xeetu ubbeeku dara gën a koo gaaw ci ubbi doomu aadama kon ñoo leen siyaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa a àddina ak alaaxira auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa barakaatu yéen Daaru Salaam Ziba ñoo ngi leen siyaar